dogal bi conseil constitutionnel jële moo dal ci kaw exécutif ci dàquk élection yi soxal président Macky Sall ak ñu ma àndala mu amay njeexital ci ñoom. su consulter ñooñu gouvernement bi consulter administration consulter candidat les vingt candidats peut-être du leen gis ñoom ñëpp. Mm. mais dégg naa am na ñu recevoir ci palais bi donc su phase consultation bu pare yaakaar na président. dina jël dogal pour euh, jàpp benn date bi nga xam ne kenn mënu ci dellu gannaaw. mu nekk diisoo ngir jël dogal bi gën a ñu ciy laaj lan lañ war a def. en tout cas jusqu'au avril moom mooy président de la république bon xamuñu nag euh, est-ce que dina nangul euh, bi wala moom tamit est-ce que am na beneen gis-gis bi mu am loolu moom mu ngi suñ kanam mën na mën nañu xalaat ni su fekkee di président àndul ak loolu mën na wut beneen pexe. président la république bu ñu weddi assemblée nationale boo xamante ne dañu soppi lu mu wax lu ñu ci gis nag mooy candidat bi nga xamante ni pouvoir bi la doon représenté moom la ñuy weddi. Amadou Ba nekk seen candidat ñoom majorité présidentielle war a nekk euh, war a défendre euh, APR ak Benno loolu euh, mën nañ ko sanctionner ci loolu parce que nit ñi dinañ ko gisee comme candidat Macky Sall mais comme sanctionner opinion nag loolu lay demee. mën nañu sanctionner non pas parce que Amadou Baal déedéet dañ koy sanctionné parce que moom dafa bokk ku ñu sanctionné déjà. datu élection yi nag kenn xamagu ko léegi élection présidentielle yi. naneen lañ koy tëggaatee. ki nga xamante ni nag kenn du ko ci gis. PDS ak Karim Wade.